bu daan way rasuulillaahi aras jaayoo kenoom jibriilu naan ko jël nga la bàkkul sëriñ tuuba fa buur yàlla tànnee taaha muy sayyidal wara seex bamba jiitoo góor ñi doon maam tuuba waaw ah, asalaamaaleykum wa wa barakaatu e, dañuy def balaa <clears throat> nuyoo sax e, jiital ci ay ñaan jëmale ko ci sëñ taxa Mbàkke góor yàlla moom sëñ eh, Basiru di ko ñaanal mu gën a yàgg gën a wér ba liggéey bii nga xam ni eh, sañu boroom teg na ko mu def ci lu kaay njortam tey yenn wooyof toll di ko ñaanal it mbooleem njabootu Serigne Touba gi yëpp di ziar bu baax a baax it eh, jotaay bii ñu toog suñu jëriñ yi ñu toogal lool mu mel ni sëñ maam Thierno Amar ak mbooleem ñi nga xam ni ñoom la àndal ci liggéey bii nga xam ni mooy xidma gi di organisation bi nga xam ni eh, fédération bi moom lañ yëkkati teg ko suñu loxo di. ziar bu baax it mboolem membre yi ci ne yëpp comme noonu nga ko waxee rek jotaay bi sax xëy na ni du tey rek lañ la tàmbalee daje waaye daanaka ay weer ci ginnaaw ñi nii yoo xam ni dañuy def benn ba ñaari yoon yu ne ñu daje waxtaan daje bi nag dara sababu ko lu dul bis bu tedd bii nga xam ni moo ne sañu kanam muy 18 safar nga xam ni seen yaakaar tey ak ëllëg dafa waxoon ne képp koo xam ni sama mbég sa mbég la ñëw leen santale ma yàlla ci bis bii nga xam ni awma lu dul moom di bis boo xam ni lépp loo xam ni am na ko fa sañu borom rek dañuy wax ni fa ko amee waaye nag di boo xam ni lépp loo xam ne rek amee nañ ko ñun ñii fa sëñ bi rek ci bis boobu lañ ko amee kon nag Eh, dañuy wax ni xëy na bis boobu mooy bis bi nga xam ni moom lañ mës a dégg ci taarix ne ku tedd ki woote na ci luy xaw a mel ni sax ndimbal te jegewu ko bis bi nag niñ ko fasee organiser rek mooy saasu ne niñ ko yàgg a defee ndax defe naa ni daaw moom màggalu Argentine tas na ci gox-goxaan yëpp fu ne rek woote nañ fa di di di di soññe di sant sant goo xam ni eh, jéggi na day waaye nag yoonu murit moom euh, waaw góoram du leen lu dul rek taxaatal sa laxasaay bu baax te màggal gi moom ni ko sëñ bi waxee rek jaamu yàlla at bernde te mooy jàng alxuraan jàng xasida ba noppi bernde foofu nag fa lañu ñu fa la ñu fas yéene teg sañu tànk te mooy lépp loo xam ne rek defoon nañ ko daaw rekk fexe ba mu faw xa bu reen bi faw xa ka dëgg la nag jamono jii ñu toll ku ku xam Argentine dégg ko xam ni e, dëkk bu nekk ci tolof tolof la ci wàllu économique loolu moom ñi ne ci dëkk bi xam nañ ko waaye ñi ne ci bitim réew bi tey déglu média it xam nañ ko waaye nag Sëñ Tuubaa moom e, doo ko liggéeyal mukk bay xalaat dëkk bu dëgër wala dollar bu yéeg wala dollar bu wàcc ndax diñ koy waxe saa su nekk rek jëmmam ju tedd jooju maanaam tartar yi nga xam ne sañu borom teg no tegoon na ko ci nattoom googu du woon lenn loo xam ne rek ngir ñun ñii ñu jote sañu bakkan yi jote sañu sañu bopp la kon nag ñu xam ni eh, liggéeyal sëñ Tuubaa moom di xalaat lenn loo xam ne rek luy aspect la ci wàllu jamono maanaam warul te mooy du tàngoor du xaalis buy yéeg ak wàcc du seddaay du lenn loo xam ne rek war naa ne ci jamono ba tax rek liggéey bi di ko yëkk kon nag ñu gën a góorgóorlu ñëpp rek futteeku jaayante te xam ni daaw bu ñu defoon fukk ren war nañoo def ñaar fukk te ñun ñii ñoo koy def kon nag loolu ñu ngi ciy woo mbooloom yëpp ci pas-pas addee ji nag sas wi lim nañ ko nañ góor góorgóorlu ba ñëpp rek. 4000 pesos 4000 pesos lañ lañ lañ sase euh, loolu nag ay ay ay mbiru individuel la yoo xam ni dañuy sàkku membre bu ci ne nga fexe ba joxe ko te mu doon sa digganteeg sëñ bi. Euh, ba li ñu bëgg ci dëkk bi ci wàllu bernde at leneen ak leneen ñu fas yéene ko amatal ndax xam nañ ni inflation bi inflation bi am ci dëkk bi lépp lu doon jar fukk rek tey moom ci juróom fukk wala mu doon juróom benn fukk waaye nag comme ni ma ko waxee sama benn wax ji rek sëñ Tuubaa nga xam ni moo ñu moom yaakaar ñu yaakaar ko eh, niñ koy waxee saa su ne moom li ne ci jiba yi moom sañuy doom moom sañu lépp dañuy fexe ba eh, woote gii mu woote te ñu fas ne ko ci santale sañu borom bu mu koy yëg ci leen ndax kenn ku ci ne la ngay def mu jëm sa bopp lu dëkk bi xat xat xat xat xat xat yaa ngi koy def mu jëm sa bopp tey wax dëgg yàlla eh, naar bi fii ndi xorom si de bu soxlaa leen ci xorom gi damaa jàpp ni eh, coof ca wàññiwul dara kon nag ngi woo mbooleem koo xam ne rek yaa ngi biir Argentine gii tàmbale ko ci jëwriñ yi nga xam ni ñoo ŋànk fédération bi ba ci ñun ñi nga xam ne ñoo ci gën a xeebu ñu gën a dundal màggal gi gën a yëg màggal gi gën a xam ni bis la boo xam ni eh, amuñu lu dul moom raw gàddu gi nag ni ko sëñ Saliou Mbacke waxee bu yàggul koo ci xas ba raw dootu la dab mukk te wax na ni fépp fu fi ñaar féete kenn ki gën kaa fonk moroom ma moroom ma du nopp du gis moroom ma la mu ko féete kaw ba faaw kon nag war nañ cee góorlu bu baax a baax a baax ñun ñëpp eh, dawale si lépp mu jëm ci ngir Eh, kàddu yi tedd yooyu ñun kenn ku ci ne mu dal xam naa du ñàkk buñ joxee kàddu gi jëwriñ maam Thierno lépp lu ci war a dem ci wàllu eh, lu ci mel ni waajal gi te mooy safar gii nga xam ni sëñ Mountakha Mbacké eh, joxe na ci ndigal ñu koy def ci gox-goxaan yëpp te mu gën a yell fii ñu nekk ndax bu ñu fàtte mukk ne sëñ Touba ci boppam moo wàqante woon ak tubaab yi ne dinaa leen fekk ba seen réew boppam ya seen réew bopp ya lii ngeen doon bañ sama réew ma koy yëkkati foofu foofu te loolu defe naa ni sañu mbooloo mii seede la ci kon nag lu ñu def lu dul jéem a taqatoo doon benn ndigalu sëñ Muntaxa bi muy euh, premier safar gi fas yéene dajale ci bu ko laajee ca congresso bu ñu amee permission yi eh, yëkkati ko fa eh, jibal fa xëdi xësida sëñ Tuubaa yii jàng fa ay lim ci alxuraan te jox lépp sëñ bi àddiya te xam ni barab la boo xam ni wax dëgg yàlla Eh, bokk na ca ñaan googu sëñ waa ñaanoon ñu xam ni fii moom réew la moo xam ni réew mu tumuranke lu mel noonu la kon nag ñu ngi ñaan yàlla rek yegg ci ak jàmm te defe ko ni nga xam ni noonu la ko sëñ bi bëggee te di ñaan sëñ bi nangul ñu ko te làqal ñu ko foo xam ni yàq du fa yegg ba mukk lépp lu ci war a dooleeku nag eh, jëwriñ maam Thierno dina ko ci sof salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziar yi ñëpp tey ñaanal Serigne Mountakha Al Bachir mu gën a yàgg gën di ko noonu di ko ñaanal njabootu Serigne Touba gi yëpp di nuyu mbooleem fédération bi yëpp di ci jiital Serigne Ankoba ak Serigne Bamba mi ak mbooleem jëwriñ yëpp rek di nuyu wa organisation bi yëpp nekk sama ginnaaw ak ñi ñëwut ci njiitul sëñ Bamba Ñang ak mbooleem ñi ci bànqaas yëpp rek. di rafetlu bu baax seen taxawaay ci liggéey bi sëñ Gora ni nga ko waxee xam na ne premier safar bi moom incha allah ñi ngi koy waajal comme niñ ko daan defee waaye daf fekk ne mbir boo koy def ba sa kilifa joxaat ci ndigal loolu kon ak tawfeex la kon yàgg nañ koo def mu dolliwaat ci ndigal li kon tawfeex la ñi ngi nag soññi boole jullit bu nekk ci dëkk bi ci maanaam wàccaayu màggal gi ci bépp fànn bu mu doon nag commencé ko ci première safar bi première safar bi nag ñu ngi koo fas yéene taxaw li ci woo mbooleem jullit fas nañ ko yéene defe nag place à congression incha allah ñu ngi ciy woo mbooleem kuréelu xasida yi bàyyiwuñ kenn buñ limee du matal mbooleem kuréelu xasida bu ne ci dëkk bi rek ñu ngi la ciy woo ak mbooleem taaliba bu ne ci dëkk bi ak jullit bu ne ci dëkk bi di ci woo mbooleem suñ mbokki Baay Faal yëpp rek ndax fas yéene nañ faa yëkkati ay xasida ak ak sikkarullah ak joxe fa ay bernde ak ay kayit yoo xam ne dañ ko jox suñ mbokk nasaraan yi nga xam ne danañ xam li ñuy waajal kon nag ñu ngi ciy woo kenn képp ku dégg woote bi rek xamal na mooy sa woote kon nag bàyyiwun kenn dana am ay xéewal dana am kuréel dana am sikurlaa dana am lépp kon ñu ngi ciy woo kenn bàyyiwun kenn te lépp loo xam ne sii nag woote nan ko yéen ñi nekk ci organisation bi ngeen jëm ci dox seen kem kattan xam naa nag premier safar xamuñu ko bis bu weer bi teroo lay doon da ngeen jàpp ne bis bu weer bi feeñee rek boo bis booba la kon mooy seen woote ñëpp te nag ñu ngi wax mbooleem ku nekk ci fédération bi waa organisation boobu léegi ñu ngi daje ñu ngi di woo seen membre yi nga xam dañoo nekk ci seen daayira yi te ñu war a nekk ci wàllu organisation ñu yóbbale leen ndax bëgg nañ bu ñu liggéey liggéey bi ànd koog ñëpp ndax liggéey Sëñ Tuubaa kenn mënu ci seet kenn mm-hmm. waaye daf fekk na liggéey nag booy ànd ak nit di ko def day fekk ngeen di tënk di réunion ñu xam ni ngeen di doxale ndax bëgg na organisation bi ñu defoon daaw mu am gën a bu gën a mucc ayib ndax loolu day firnde ne tànki Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam la am kon ñun fas yéene noonu lu ñu defoon daaw ñu def ren lu ko ëpp di soññiwaat mbokk taalibe rek ñu jaayante ci addi ji nga xam ne moom lañ teg ci màggal gi képp ku lay découragé loolu nag ñoon waa bitim réew dañuy def léegi dañuy def léegi ma ngay màggal këram te yaakaar naa sëñ Touba fu yóbbu nañ ko kon fu ne war nañ ko faa màggal comme ni ko sëñ Bamba waxee rek la ko tubaab yi doon tere dëkkam kon tey bu ñëwee ba bikk tubaab yi di ko def loolu mooy firnde liggéey sëñ Tuubaa képp ku lay découragé loo wala mu lay jox discours wala mu lay jox ay moral naan waa bitim dañuy yàq wala dañuy nangam bis sëñ Tuubaa kenn mënut a tee ñu màggal ko fii kon nañ ci jaayante màggal ci ndax sëñ Tuubaa boo ko màggalee sa xol tamit dëgg ci yow rek jàppal na màggal nga ko sëñ Tuubaa nag mun kenn du ko nax du nax kenn waaye kenn mënu koo nax te boutique la lu fa waaye jëndul mënu ko faa am ñu ngi wax mbokki jëwriñ yëpp na fas nañ leen première safar bu ñu ko commencé àllarba ba ci njëkk ñu ngi koy ñi ngi koy fas yéene defee première safar bi àllarba ci njëkk ñi ngi koy def miftaawu nasri jëwriñ ju ci nekk nag danañ jokkoo yow wax la bis benn fay ñëw karawaan bi moom nañ jàpp ne bu première safar passé ubbi na ubbi na danañ dem ci daayira yëpp ànd ñoom safar def fa safar bi benn dafa soññiwaat ci màggal gi kon ñu ngi woo ñëpp ñu jaayante ngir jëm sëñ Tuubaa ñu màggal bis bi di ñaan suñu borom dénk ñëpp ay xéewal yu mën a def ci bis bi te sëñ Tuubaa nogul nu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa salaamaaleykum wa rahmatullahi ngi ziyaar mbokk taalibe yëpp di ziyaar mbokk jullit yëpp di tuubaat bu baax a baax a baax ci kàddu yi ñuy yëkkati xañ na motewuñ ko sax mënewuñ ko waaye nag kàddu ndigal moom jëfe rek waaw ñu ngi sant bu baax a baax a baax sant Serigne Touba bu baax a baax a waaw di ñaan lii ñuy jëm nii sëriñ bi defal ñu si lu kawe sunu njort ba ni ko defee woon daaw defee ko daaw jéeg Serigne bi yokk ko dafa ñu ci ay tawfeex yu kawe sunu njort wax dëgg yàlla mbokk yi ñu ngi ciy dox wax dëgg yàlla ñu ngi ciy wax ñu ànd ceeg suñuy jëwriñ wax dëgg yàlla ñu ngi tënk waaw di ñaan sëriñ bi defal ñu si lépp lu ñuy def rek sëriñ bi nangul ñu ko te fulal ñu ko te lépp lu luñ ci yéene rek Serigne bi àggaleel ñu ko. wax dëgg yàlla mbooloo mi ñu ngi ciy dox ak yéene bu baax a baax a baax a baax a baax ndax soo gisee maanaam heure bi jot fi mu ne nii une heure jot na te daanaka des fois dañ fiy nekk bu mu gën a guddi sax te lépp rek ci bëgg liggéeyu sëriñ bi dox bëgg maanaam dëkk bi ñëpp rek yëg ci seen bopp xam ne kat weeru safar bi teru na xam ne kat bisub sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moom la woote ni ñu santale ko ci yàlla teru na maanaam mbooloo mi yëpp ànd ci rek di dóorandoo di yëkkatandoo di tegandoo di ñaan nag lépp lu ci def ak coono boo ci dox ak jéego boo ci dox rek sëriñ bi fay la ko ay yiw yu kawe yoo xam ne dala koy dencal foo xam ne yàq agu fa kontaan nañ wax dëgg yàlla jëw jëwriñ yëpp a ngi nii boobu ba léegi ñu ngi tënk ñu ngi ñu ngi ñu ngi waxtaan di xool lu ñuy def ba màggal gi jag màggalu suñ tuwaa gi jag waaw waaw dana am yu si yees nag waaw ndax soo xoolee maanaam ñun ñi nga xam ne ñu ñoo nekk ci waañ wi nga xam ne du tay rek lañ ci nekk yàgg nañ ci maanaam am na ci yu bari yoo xam ne day sooxeel mbiru waañ wi te loolu ñu ngi ciy waxtaan ñu ngi ciy waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo jiitee wàllu wàllu wàllu xidma gi pour ñu gën ñu cee dimbale gën ñu cee defal ay jéego yoo xam ne ñun danañu dimbale ñun ñi nga xam ne ñu ñoo nekk ci mbir mi maanaam di bàyyi ay yitte ay fan nekk ci liggéey bi maanaam dañuy bëgg rek lépp lu ñëw rek tegu ci yoon maanaam comme ni comme mel ne li ñu tënk léegi sànq nii rek muy wàllu heure bu añ bi jotee nga xam ne maanaam heure reer wala heure añ nga xam ne heure bu ñu waxee ne ñoom heure bi lañ soxla añ yi ak reer yi rek bu soobi Sëñ Tuubaa ñu ko bëggee noonu lañ koy doxalee si kàttanu Sëñ waaw loolu nag xañ na àggagun ci ndax maanaam comme ñu ngi waxtaan te tënkagun ci dernier euh, réglage yi maanaam ku na xam ne dëkk bi ni muy doxee tey loolu doon jënd tey benn su subaa mën naa yokk ba ñaar ba ñett waaw loolu tënkagun ci xamagun maanaam ñaata lañ war a soxla ci xayma mais nag maanaam yaakaar nañ ne daal lépp luñ soxla rek ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite danañ fexe ban jot ci liggéeyal ci sëriñ bi ni mu waree.